Amadou Mbacké Faye su jëwriñ bu baax bi di jëwriñ Sëriñ Tuubaa fii ginnaaw suma xarit maître Babacar Cissé waxee mën naa ne awma sax lu may wax ni wax nañ lépp dama ci yokk tuuti rek pour wane ni lii tawat bu mag la bu rëy ci réew mi ndax dafa am loo xam ne xel mënu koo nangu nit ki lim am lim moom dañ ko koy jox ndax dañu xëccoo bañ tànn promobile mu waree liggéey ak Free booba ba léegi ñu gis ay galgal yoo xam ni moom la Free di def pour que promobile du liggéey ti ba mu waree teg ci table ji ñetti téeméeri million pour mën a muy loolu nga xam ne mooy tax mu mën a bokk promobile def na ko li ko état bi teg mu war tabax wut ay dëkkukaay yoo xam ne ñoo koy nekkal ci département Sénégal yépp nekkal fa promobile nga xam ne yemul Dakar rek def na ko ba waree jënd oto oto yaa ngi nii gis ngeen leen jën oto yi pour ñuy yóbbu di rabitaay di def seen liggéey jël ay téeméeri téeméeru nit ñuy liggéey di fay lépp téeméeri juróom fukk million par weer ci masse salariale mooy li ñuy fay nit ñi muy seen solde jël ay milliards def ko ci boobu ba léegi sun gaa yi ñëw war a liggéey ak ñun waa Firi war ñu yombalal liggéey bi ni déedéet nu mu gën a méttee rek

ñoom daal dañoo bëgg yëpp Sénégal teguñu ñu ay nit teguñu ñu ay nawle ñëw nañ suñ réew suñ réew am charte am ay ponk yoo xam ne moo yore réew mi ku toll ni ARTP nga xam ne moom moo war a seet lépp loo xam ni noonu la war a demee ci mbiru téléphone ñooñu lu ñu wax firi du ko dégg bu leen ne lii ak lii ak demee ngeen waxtaan ndax li ngeen bëgg mënul am duñ ko faale ba ARTP bu ñu jël benn décision ni léegi man naa fi prix yi parce que yéen da ngeen a ndax faalewu leen ma te man maa yore mbir mi mais loolu lu muy wane mooy Sénégal war na fippu mooy gouvernement bi war na fippu ndax ñii état bi la ñu bëgg a yàpp ci état nag ñun ñëpp la gouvernement bi la ak ñun kon ni tey mbakk yu xeexee ñëpp Sénégal yëpp dañ ko war a xeexee ngir dëgg jolli ndax suñuy droit suñu yelleef mën a jolli ci réew mi waaye ñii ñoom sax dañoo mel ni ñu xaw a dof ndax dof weesuwul ki nga xam ne bu ñëwee di liggéey day yokk say client mun ay client yu bëri ba pare am lay compos di la ko jox yow bokk ak say client bopp nga am beneen façon client boo xam ni yow promobile boo ko indi ay millions de clients nga am ci ay milliards et waaye olof jaay nee na ku iñaane sa ndono sa dee ñaaw ndax yéene wuñ sax ñii nga xam ne bu ñëwee dañuy yaatal géew bi fi di gën bëri ay ay clients ay abone ndax abone yi nga xam ni ñëpp dañuy ñëw ci promobile am na loo xam ne après fii da koy jël bokkee fii day gën a bëri xaalis man xaw ma ñii dañoo dof xaw ma dañoo réew xaw ma dañoo rakkaaju xaw ma lu leen dal ndax parce que ñoom daal fonk nit du doomu bu ñuul ndax ba léegi ñoom ñu ngiy dund beneen beneen àddina mooy fa ñu jógee ay français yooyu ñooñu moom ñun kenn moomatuñu ah kenn moomatuñu Sénégal ca kanam ndax kuy fay ca kanam promobile ca kanam ngir Sénégal taxaw jërëjëf